wa rahmatullah waaw ñu ngi gërëm ñëpp di remercier monsieur le maire Serigne Mboup eh, di wax ne comme ni ko Abdoulaye Thiam waxee eh, suuf dafa nekk lu délicat lu doy waar bi ñu ñëwee Kaolack comme ni ko président Serigne Mboup waxee dañoo créer benn commission de gestion du patrimoine foncier de Kaolack bu ñu wax gestion de patrimoine foncier dafa fekk ne lan mooy moomeelu mairie Kaolack la mooy moomeelu commune bu Kaolack ci wàllum suuf kon présentation de commission bi ni ko Ablaye Thiam waxee ay techniciens ñoo ci nekk ay administration ay nit yu nekk ñu xarañ ci administration tamit ñoo ci bokk donc euh, Régis mën nga ñëw ci présentation bi déjà ñu wax lan lañ jot a def ak suñu feuille de route à présenter donc page suivante s'il vous plaît donc voilà euh, la présentation de la commission. La commission, c'est une commission qui est chargée de la gestion du patrimoine foncier pour la ville de Kaolack. Donc, à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà. bi ñu ñëwee créer commission bi suñu premier objectif moo doon def état des comme ni ñu ko gisee état des lieux bi mooy saytu naka la suuf si demee woon fii ci Kaolack ni ko mairie bi doon gérer fekk nañu fi plus de 200 demande d' de construire yu nekkoon en instance fekk nañ fi woon amoon nañu tamit ay lacunes li ko waraloon mooy dañ fi fekk une absence de base de données répertoriant les titres fonciers appartenant à la mairie amoon nañu aussi une absence de plan de délimitation pour la commune am nañu aussi une indisponibilité des plans de lotissement effectués par l'ancienne équipe municipale am nañu aussi euh, une non mise à jour Euh, am na benn missage à jour boo xamante ni jotuñu ko woon def boo xam ne moo war a lii nga xamante ni lépp lu luñ fi délivré ci titre mairie bi amoon na ko wala amu ko fekkuñ ko fi tam ci place absence aussi de prise de en charge du contentieux foncier maanaam contentieux bi gën a rëy ci wàllum suuf fekkuñu loo xamante ni doon nañu mën a indiquer situation bu ni mel am nañ fi aussi absence d'archivage de documents li ko waral l'ancienne équipe wax nañu ne lu ci bëri maire bi fi jógee nangu loon dugg ci wàllu suuf ci lu bëri fekk nañ fi tamit absence d'état de droit réel ci titre foncier yi nga xamante ni moom la mairie bi moom page suivante s'il vous plaît bon absence d'évaluation de l'assiette foncière municipale aussi waaw yooyu yëpp amul ñi ngeen ñi gis ñu bind absence yëpp mooy ne fekk ñu ko fi en place ensuite page suivante s'il vous plaît daal dinañu procéder ci état des lieux général en collaboration aussi avec le service technique qui nous ont beaucoup aidés à savoir le cadastre l'urbanisme et les domaines euh, page suivante s'il vous plaît donc voilà euh, après bi ñu xoolee saytu état des lieux bi nga xamante ni commission bi def na ko ci jafe-jafe yu bëri yu ñu ci am am nañu présentation boo xamante ne mooy objectif yi nga xam ne jot nañ ko réaliser ñaari weer yi nga xamante ni commission bi nekk na en place Euh, diligenté nañu 123 dossiers de demande d'autorisation de construire maire ñu ne loolu yëpp ginnaaw bi mu toogee ba saytu ko ba jox ko tamit seeni borom euh, bureau BRAD bi ñuy wax ñoom ñooy gérer recette affaire domaniale jot na ñoo régler 25 ordres de recette yoo xam ne am na recouvrement actuel euh, pour la délimitation de la commune aussi tooguñu def nañ ay jéego dem seeti la direction de l'aménagement du territoire à savoir l'ANAT mu permettre ñu ñu commencé entamer une nouvelle définition de la commune de Kaolack en collaboration aussi avec euh, la direction paysager pour euh, les espaces verts ñoom déplacé wu nañu jógee ba Dakar ci fan yi ci ginnaaw observer les espaces verts ndax Kaolack dafa manqué ay espaces verts yu bëri ñu def ay relevés topographiques ci loolu la ñu mën a saytu nu ñu mën a aménager les espaces verts pour la population page suivante s'il donc euh, mun nañu wax ne tamit commission bi toogul ndax contentieux bu ñu yëg rek jóg nañ dox ca ci loolu dem nañ ci quartier bu ñu wax cité Senghor ñu bëri yëgoon nañ coow li fi amoon ak benn promoteur immobilier en face avec la population waaye bi ko commission bi yëgee dox nañ ci ay jéego toog autour d'une table waxtaan ci diligence bi nga xamante ne moom na ci maire am def na ko ci ba règlement à l'amiable jot nañ ko ci am en collaboration avec le service du cadastre mu déplacé wu moom it avec son appareil dem def délimitation bi euh, ginnaaw loolu tamit bureau BRAC aussi ak agent voyer xool nañu seen liggéey ni mu gën a gaawee ñu mun ko defar ñu daal di saytu ne guichet unique war na am loolu mettre nañ ko en place aussi au niveau de la commune et amoon na fi aussi benn réunion bu ñu teniroon dem seeti commandant de brigade d'Escos moom ak adjoint bi ñu accueillir ñu xamal ñu lu bëri loo xamante ni ci contentieux foncier la jëm mu accompagner ñu pare tamit pour jàppale ñu page suivante s'il donc ci état des lieux bi ñu wax sur l'occupation du marché gis ngeen fan yi ci ginnaaw ay équipe yoo xamante ni mairie moo leen yebal ñuy def natt magasin cantine ak état lépp lu ñu fa fekk di def état des lieux général avec un recensement accompagné par le bureau BRAT ci ginnaaw loolu tamit gis ngeen fan yële ci ginnaaw tali bi nga xamante ne mooy la route nationale mu am ay affaissement yu doy waar terewul commission bi jóg na dox ci ay jéego contacter les service de la ONAS ñu jóg rapidement diligenté defar tali boobu ndax nekkoon na loo xamante ni naqari woon na askan bi te it mairie bi jóg na ci ay jéego ba gis ngeen ne fan yi ci ginnaaw ñu ngi koy defar tout le réseau sera réfectionné incha allah page suivante s'il vous plaît euh, donc ci ay conclusion nu mu gën a gaaw euh, ginnaaw adjoint au maire mbay Ngom def na résumé ci lu bëri am nañ ci ay projet yoo xamante ni mooy pavage des accotements maanaam lu jógee ci buntu kër yi ñëw ba ci tali yi ndax suuf si dafa sonnal tali bi loolu bu ñu ko defee rek pavage boobu dina dimbali askan wi ci lu bëri te loolu tamit ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di wax ne lii résumé rek la woon mais lépp loo xamante ni commission bi taxawee na ko pour liggéey pour jàppale commune de Kaolack population de Kaolack en collaboration avec monsieur le maire voilà merci Sandéné. léegi Régis da nga may ñëwal direct kii rek très rapidement ma war leen quelques grands projet yoo xam ne mairie bi ma bët na pour def ko allez